lii mooy wane ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar instant bi lii mooy wane ne Sénégal pays démocratie la ndax urne yi wane nañ ko vraiment en tout cas maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaane ñëpp parce que lii mooy image Sénégal lii lañ xam démocratie dem urne yi voté ci gagné gagné waaw lii mooy Sénégal vive le Sénégal vive l'Afrique. yow ça ça la mais résultat yi jeexul commencé mais tendance yi wane nañ ko tendance yi wane nañ ne carrément carte gi leer na. oui instant kay Amadou Ba li mu war a def mooy dellu ginnaaw boo jomaay tel ko félicité jël fool dem Europe dem noppalu ji instant loolu rek moo ko dese. ngi sant ñëpp di ziar ñëpp lii moom victoire bu rëy la bu nga xamante ni nii moom fierté ñëpp la parce que lii mooy la Serigne Touba waxoon rek ni xat faaxa kab la xat xaafa fat la fa dur walla wal na fa jaay nee na dagg nañu déng ñëpp tekki nañu buumi fekki nañu nit ñi ngir nit ñëpp mën a ñëw jariñu kon tey jariñu dafa jot ñu jël alalu réew mi si ko séddoo te duñ ci gis suñu bopp loolu yëpp dafa war a dakk tey kon nag mu ngi noonu lii la fierté la les résultats ne sont pas encore définitifs même bu fekkee définitiful li ñu gis nii doy nañu sëkk même bu premier tour deuxième tour amul it lii lépp doy nañu sëkk kon lii moom dafa nekk loo xamante ni doy nañu sëkk sëkk sëkk kon nag mu ngi noonu kontaan li tax ma kontaan man citoyen simple la mais ñiñ fal tey nag lañ leen di soog a jox ab yan bañ dalee bi yan ba léegi tey lañ leen koy soog a jox nañ bàyyi xel lu leen fal nañ xam ni ay bakkan yu bari ñoo des ngir ñu falu nañ xam ni nit ñi dañoo jaay seen deret ngir ñu falu rëkk waay nañ yërëmu askan wi rëkk waay nañ diglu askan wi rëkk waay nañ ñu geesuwaat kenn falu jàpp ne sax njàmbaara la fal déedéet ñun ñoo leen fal nañ ñu bàyyiwaat xel nañu xool ni ñu leen kontor itam xeeb leen taxut ñu kontar leen dañu leen a xamagut mais ñu ñi leen fal buñ jàpp ne dañ ñoo gën moo tax ñu fal leen dañoo am ci ñoom yaakaar dañoo am ci ñoom yaakaar jeunesse jeunesse bi koo ci gis deseetut ay yax yëpp koo ci gis day xalaat demal ci sëg boo xoolee quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ñu ngi ci armeel yi xale yu ndaw di xëy di faatu doo xëy mukk Sénégal suuluñ lu mat cent personnes ay jeunes kon nañ xoolaat réew mi te am yaakaar moo tax ñu jël ko jox suñ moroomu ndaw nañ ñu gees suwaat te yàlla rek tax yërëm ñu soutenir ñu xam ne ay ndaw lañ xam nga bu fekkente bi da ngaa bëgg a tekki te ñaanoo yàlla tekkee sa réew kon ki jiite sa réew war naa xoolaat nañ ñu yërëm Macky Sall ñoo ko faloon te biñ koy fal treize bakkan des na mais xalaatut loolu lépp dañoo toroxal ba ñu xëy wàcce ko Macky Sall dafa naan suñu deret bu ñu xëy wàcce ko mais rikk waay Bassirou Diomaye Faye yaag Sonko ngir yàlla ak yonent bi na ngeen ñu yërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Nijaay instant yi suñu xol dafa sedd instant yi xol dafa sedd barke yonent bi ñun mosuñoo génn ci politique. ñun Sonko xamuñu xamuñu fu ndëkk mais dafa yee xeli xeli sell barke yonent bi xoolal lii ñoo ko dem jënd pour jàppale xoolal parti bi parce que xool dafa metti ñun ay téer lan ar artisan lan dañuy liggéey ba dee duñ am dara 2012 ba tey la ubbi atelier bi Macky Sall Macky Sall faloo la ubbi suñu atelier barke yonent bi dañuy liggéey ba dee duñ am dara ngay gis benn waay boo xam ne ci koñ bi la nekkoon di somoor ah di somóor ci koñ bi xëy ba nga tekki suñ kaw xoolal dafa jeex sàcc yëpp ñu jàppale waxal ñu ko moom wala dañuy wax alhamdulilah rek ndax euh, je pense que Sénégal dafa nekk ci benn euh, dynamique boo xam ne soxla nañ changement te it changement bi ñun ñëpp euh, wax dëgg yàlla franchement dañoo sonn depuis année soixante ba léegi régime franchement di sant candidat yi nga xam ne ñoo demoon élection présidentielle 2024 leen sant ñun ñëpp te it ñu xam ne ndam képp ku ko yàlla jox rek dañ koy yeyoo tey Ousmane Sonko de de suñ garaaw suñ lépp la moom jàppale Sénégal liggéey ci fair play tey ñu changé système bi li tax ñu fal leen nekku ne dañ leen a fal ngir bëggul a fal ngir dégg ngir xàq bi ndax Sénégal amul justice nañu ci dimbale nañu dimbale ci emploi des jeunes nañu dimbale ci ci xëyu ndaw yi nañu dimbale ci ci géej gi nañu dimbale ci diaspora bi maanaam Sénégal dañoo sonn nañu dimbale ci visa yi problème ambassade yi nañu ci dimbali ndax problème visa yi dafa nekk c'est un problème pour nga dem ambassade pour am visa sa problème la loolu moo tax ndaw di jël gaal jigéen ñi sama ginnaaw nii amul kenn ku jam am boo yii nii am réew am réew fii réew Sénégal ba nekk réew moo xam réew mu faible la maanaam par exemple fépp taux bi daa bari taux de chômage bi Sénégal daa bari ba pare càcc gi dafa bari Sénégal amul liggéey Ousmane Sonko nag bu ñu koy fal du pour dara pour changer système bi la pour changer système bi waaw ñu leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp